nuyu di la ziar di la bëggee di jox sa wàccuwaay bu baax a baax. gars yi foofu baax na ma nee dem mi ngi timis c'est bon. Ada ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay tey fekk na fi nga xamante ne mooy sa feef muy Fass nga am combat bi nga xamante ni daanaka ñëw na tey lay wax say supporters avant ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax baax a baax. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jawalax almisba Karafal jawalax maam Thiambo Karafal waaw maa ngi nuyu di leen sant waaw di leen dalal yéen presse bi yëpp di leen jégalu tamit waaw si heure bi di leen jégalu déplacement bi waaw waaw tey jii gis na ngay ne mobilisation comme d'habitude tey nga gis say coach wër la tey am nga combat boo xamante combat combat combat bu doy waar nga am ndax la ji sa adversaire loo koy yóbbante la nga koy wax ak lay wax sa supporter. waaw maa ngi woo ñëpp gërëm ñëpp tamit naata ñëpp ma teewal gis nga fii tey lu mel ñooñu gërëm ñëpp waaw ñooñu gërëm ñëpp. waaw dina am nañ combat xam nañ ne am nañ combat mais combat bi dañoo jaral barke Serigne Sall dañoo jaral trop trop ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam waaw ñaan yàlla ndam. waaw les adversaires loo koy wax mi ngi lay dégg. ma adversaire waaw na ñëw dëggal boppam rek na ñëw dëggal boppam waxuma ko leneen. ma ku gis xam na ni xeex. te gis nañu macha allah yow sa xeex macha allah yaa ngi koy yaa ngi koy wut jamono ju nii mais tey bu dee xeex muy di xeex yaa ngi moom na lay demee bu ñu dee bëree yéen ñaar nan lay demee. non laamu laamu la ñu wax laamu ñaar la laamu bëri laa xeex. ñun pare nañ si port yëpp lu indi rek pare nañ pour jëfandikoo ak moom incha allah. incha allah Ousseyn. jaajëf Ada ñu ngi lay nuyu di la ziar ngay bëre koo xam ne moo la jiitu ci laab rek. dëgg la yàgg na dugg Fass bëri woon na fee Djily Mbaye daan ko. yaakaar naa ne mbapat moom ku ne jokkeel ne mbapat nan nga fas yéene waaje ak combat bi nga si nar. waaw ñun ñoo waaj bu ñuy waaj yàgg na du léegi sa waay champion la mais dafa des ak dafa dajeeg ndaanaan. du ma ko miim champion am mais man daanaan laa barki Serigne Bamba du ma tëgg sama bopp mais champion laa te le 27 si kàttanu suñu borom dina leer incha allahu rabi. ngay bëreeg champion bu mel ni Jokal bëreeg ñoom Goro Sock bëreeg ñàkk jariñu bëreeg ndaanaan yu bëri combat bi fan nga ko teg ak combat bi aussi tamit lan la la jaral. luñ liggéey luñ liggéey ay nekk xale loolu kese la du dara gëm suñu bopp ñoo jàpp ne ñun lu ñuy mbabat si àll bi daan nañ ko Jokal si àll bi. kon boog Jokal man feesul samay bët gaay la nii rek mais fan man feesul samay bët barki Serigne Saliou mm-hmm. Ousseyn mu ne combat bi maanaam yow fi nga ko teg nekku fi parce que dangay yaakaar ne moom paa bu jeexal la wala nangam te combat bi la gën a fonk ci parce que dafa téye woon dafa téye woon làmb dëgëral loxoom ji dee xaw ma cuut nen la wax daa téye woon nen yolamal loxoom nen bi rëcc mu waat ko diisal loxoom nen bi toj nee na téyewaat na ko te xam na fan la koy yóbbu. waaw bu waxee loolu day wax lu ko moom lu ko neex rek nara dafa fekk xale bu fere fees dell macha allah gëm suñu bopp liggéey man du ma bëre deux minute te dimanche dina leeraat du ma bëre deux minutes. doo bëre jokkal deux minutes muku. mais Adama loolu nga wax noonu yomb na trop. loolu yomb na daal deux minutes. yaakatul la le 27 yaakatul incha allah. ne ko bu dëggalee boppam. waaw bu dëggalee boppam si kaw mu dëggal boppam. naata man ak moom dañoo xamante. Uh-huh. à part làmb dañoo xamante bu baax. Uh-huh. waaw xamante nañ bu baax ngeen daje ay mbapat fépp. non xeebu ma ko naata champion la na fi ay champion yu ma juri si làmb mais sa waay man damaa gëm sama bopp damaa gëm lu ma liggéey naa naaguma si benn yoon mais damaa gëm ne bu mu ko jàppee day jeex incha allah. mais Ada tey fu mu toll nii say supporter gis nga nu mu macha allah te yàgg nga am bis mel nii mhm. mais combat bi combat capital la si yow ci ki ngay bëri muy jokkeel dafa doon ndaanaan mhm. lan nga si say supporters yi nga xamante ne ñu ngi ñu bis ba le 27 incha allah na ñëpp ñëw si non à la violence woow ma kenn si violence di ne supporters yëpp nañ ñëw seg sa ba rafet toog si raan ma bu ñu yàq chaise bu ñu def dara na ñëw si si no à la violence man maa leen wax loolu Ada Fass maa lancé message bi samay supporters ngir yàlla le 27 stade ñoo leen non à la violence incha allah ñu fecc fecc li bërë bërë li allah daan ko ñibisi incha allah mais aada gis nañu macha allah Fass nga nekk te ku ni Fass ni Moustapha Gueye ku ni Fass ni Gris Bordeaux macha allah champion yi bëri nañu tey fu ñu toll nii ndakaaru ngay bëre kenn ko wax si signature ba lu waral nga wax loolu. ndaxte man ñëpp ma jox bopp samay morom man jeunesse bi laa man ak jeunesse bi ñoo fowandoo ndakaaru fépp aw ma sens interdit fenn si ndakaaru barki Serigne Saliou ma seen fay. lii rek dafa diis man combat bi ñoom laa ko bëril te balaa ñuy xam ne ñoom ñoom laa ko bëril la set jot bu jaree sama liste dama ko fay bàyyi ñi laa koy bëril barki Serigne Saliou dëgg la. nañ cee xaar xeex bu métti lu mu laaj combat bi déggoo ma la sama lépp lu mu laaj barki Serigne Saliou di ñaan yàlla yàlla mi may ndam yàlla may ma ndam incha allah. mais léegi koy woo fu ñu parce que fu ñu toll nii vite fait bien fait moom ngay wax yow vite fait bien fait léegi koy woo. waaw maa woo ñëpp. maa ngi nuyu yéen presse bi ñëpp maa ngi di nuyu bu baax di ne jéego yu ngeen dox si làmb rafet na ñun amuñu seen fay di nuyu Fallou Ndiaye promoteur bi di wax le 27 incha allahu rabi na supporters yëpp teel a ñëw stade ñu fees stade bi del a di woo autorité yëpp ñu jàpp si billets yi dama kaari a teel a ñëw ñu teel a dem stade si kàddu suñu borom di remercier ñëpp di gërëm sama sëriñ bi tamit waaw di ko gërëm bu baax moom lépp la dëgg la mais yàlla baaxal le 27 incha allah. yàlla may ndaw dugg na faas xam na luy faas ak sax ndax bëre woon na ki nga xam ne ne ndeysaan mooy jiili bu faas jiili mbay bu faas te doomu faas la te nee na xam na luy faas yi saf te nee na day dugg faas te dafay génnaat maanaam yow lay wax ci loolu waaw maa ngi nuyu fukk penceeg ñaar yëpp yu nekk Ndakaaru yëpp maa ngi nuyu fukk penceeg ñaar ngi dégg li nga sama grand la bëreet sama pap jili sama pap la nekkul sama grand sama pap la waaw te Dakar du saf te dinaa ko wan ne man yaramu xale laa yor si kàttanu suñu borom la 27 dinaa ko ne yaramu xale laa yor mais wul sëñ bi nee sëñ bi nee na Dakar du saf ñaari yoon loo ciy wax. Dakar du saf ñaari yoon. jili jili maa jili sax dama juum aada ah, mhm. ñu gis ne nga bàyyi fi say morom dem jëli mag la ci yow mais xam nga combat fan la la a ndaxte làmb ji dañoo jaral fu ñu jigee toroon na trop yàlla may ñu ndam ko boog bi ñuy dem dañuy gën a avancé loolu lañuy ñaan suñu borom combat bi fu ñu yóbbu xam nañ ko bu baax xam nañ ne champion la ndaanaan la mais dañoo gëm suñu bop mais ñu gis su fees su fees yi mhm. donc andil sañ-sañ mhm. gëm-gëm di ko wane ne xale la wala da nga bëgg mu ragal la wala non fu ñu jaar gars yi comprendre mais man ak moom comprendre nañ quoi daa moom daa fu ñu jaar moo tax ñaari gaynde bu ñu tëjoon bu bu ñuy tëjoo si barrière dañu xam kuy gaynde moom xam na moom bu baax mais est nga bëgg a du loolu laa ñu ñu boole champion dafa daan ay naanaan waaw loolu kese la. mais ci côté jooju laa mu jooju bis boobu yombul. bis boobu yombul. bis boobu yombul. barke Serigne ay xale si bëre xale yi am mbooloo. mais dañoo gëm na ñun lu ñuy ñëw stade lu ñu fay def si kàttan suñu borom mbirum mbër du ko fa def lanoy ñaan yàlla incha allah maa ngi woo ñëpp pare nañ si lépp barki xale ba dar la déggoo ma de du ma wax lu bëri nag la 27 sama la 27 la 27 xale yi ndaw la 27 jeunesse bi la di ñaan yàlla bi bi yor ndam yàlla ma ada